message wala kàddu yu porte parole xalif général de murit ñeel taalibe yi nag euh, yu fas yéene samp seen i ndënd wala sax wane seen bopp ci wàllu politique ci élection locale yi ñu dégmal janvier euh, bi ñu dégmal sëñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké nag di leen rek oo ñu fexe euh, bay bañ a wane yenn ni demee seen i xel bañ a demee seen i xol ci wàllu politique ndax moom mi di sëñ Bassirou Abdou Khadre Mbacké dafa jàpp ne waaye politique yi jaruñoo defal benn sacrifice ma nga woon démb ca Pikine ngir dal di fa samp Kafa représente xalif général des Mourides Ndongo Ka day Serigne Touba yu nuy jàng mu riir ci kaw ci kër Serigne Touba gi ci Pikine fii nag tey ji porte-parole xalif général des Mourides moo leen gane si. bi mu jëlee kàddu gi moom Serigne Bass Abdou Khader Mbacke daal dee fàttali tamit mbokku taalibe yi lépp luy njàngaleem Serigne Touba waaye tamit mu daal dee àddu jëmale nag ci mbiru àdduna ak élection yi nu dëgmal ak dënn yi faral di gaaw a tàng ci géewu politique bi. fi xol yi yëpp kàddu yi Serigne Bass Abdou Khadir yi naka doon sonne ci kenn ku nekk waaye tamit di jàngale ana naka lanuy def ba ñëpp mën a dëkk nag ci jàmm ak salaam ku ci ànd nit ki àndu xam fam jëyam waaye jëru yàq bokk yàqante der jëru yàqante ci ñoom Sëriñ Tuubaa ci Pikine Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké nag ngir sant représentant xalif général des Mourides léegi nag Baye Laye Ndiaye mooy ki fi uutu kii di ndem si yàlla Alaaji Góora Seck da ci Serigne nga xam ne la fi Serigne bi ko ci liggéey Sëriñ gannaaw bi ñu ko sante muy jëwriñu xalif général des Mourides ci diwaanu Pikine Baye Laye Ndiaye ñu sàkku ci moom ngir mu fexe ba jàkk daal dee samp nag ci kër Serigne Touba gi te boole ko xar kanamu gili kër Serigne Touba daal dee gën a yees dëppook jamono.